sa xam sa tey xam xam sa tey une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ëllëg ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey di waxtaanee tey mbootaay gi ñaari réew lëkkaloo woon ñu tuddee woon ko fédération du Mali ginnaaw bisu 23 juin 1956 nga xam ne am na yoon wu ñu tëraloon bu tuddoon loi cadre te tasoon Afrique occidentale française di AOF ak Afrique équatoriale française di AEF. li nga xam ne moo doon laaj bi mooy réewi Afrique yi jotaat nañ seen bopp nan la ñuy àndee. mu am congrès bu mag boo xam ne nag parti bi di rassemblement démocratique africain RDA. amaloon na ko ca Bamako ñaar fukk fan ak juróom ba fanweeri fan ci weeru septembre 1957. mu am fa nag ay jaxasoo ak i juuyoo yu rëy diggante RDA ñi jóge Côte d'Ivoire te Houphouët-Boigny ñi jiite leen ñoom ñi nga xam ne dañ ne loi cadre li mu wax nan ci téye waaye du ànd ak laaj indépendance ak ñi nga xam ne dañoo bëggoon réew yi moom seen bopp. ñàkk juboo yooyu moom moo indi ci Dakar. ñu sos 28 mars 1958 parti bi di parti du regroupement africain di PRA nga xam ne moom li mu doon wax mooy ànd te bañ a tas ginnaaw bi tubaab bi génnee Afrique parti di regroupement africain boobu Senghor moo ko jiite woon moom doomu Sénégal jooju moom nag li mu bëggoon mooy ginnaaw bi réew yi moomee seen bopp ñu ànd def wenn say ñi nga xam ne ñooy Afrique sow jant gi ànd ña ñane Afrique ca dëkk yi am àll yi di Afrique équatoriale française ñoom it ànd muy ñaari gàngoor yoo xam ne bu nu àndee rek dañuy am doole. waaye nag ñi nga xam ne houphouët ñi moo leen jiite bokk ci rassemblement démocratique africain ñoom li ñu bëggoon mooy fédération boo xam ne diggante France ak Afrique lay doon. nga xam ne tubaab yi ñoom dañuy am seen mbooloo yeneen réew yi Afrique yi nga xam ne dañoo moom seen bopp am seen mbooloo waaye nag jarut ñuy laaj indépendance. loolu nag moo tax bi Pra demee congrès Cotonou ñaar fukk fan ak juróom ba ñaar fukk fan ak juróom-ñaar ci atum 1958 ñetti téeméer ak juróom fukki délégué yee fa nekk yépp ànd ne dañuy laaj sunu indépendance moom sunu bopp. waaye juróomi weer ginnaaw loolu ñi nga xam ne ñoo toogaloon Sénégal ñu toogaloon réew mi doon Soudan français ak réew mi tuddoon Dahomey. ak réew mi tuddoon Haute-Volta daje Bamako ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ba fanweeri fan ca décembre 1958 ñoom dañ dañuy ànd def seen réewum bopp tuddee ko fédération. waaye weer wi topp ñeent fukki délégué ak ñeent yi nga xam ne ñoom ñoo toogaloon ñeenti réew yooyu ma dañoo daje Dakar defar lii ñu tuddee assemblée constituante fédérale bi nga xamee ne def nañ ko ginnaaw ñeenti fan yi liggéey. ñu tëgg constitution fédération du Mali nga xam ne ñoom ñëpp ànd siife ko woote ko bisub euh, fukki fan ak juróom-ñaar ca janvier 1959. jàpp leen ko bu baax kon constitution bi njëkk ci fédération du Mali ña ngi ko taxawal ñëpp ànd ci fukki fan ak juróom-ñaar ci janvier 1959. ginnaaw loolu ñu jël turu Mali ndax moom mooy réew mu mag moom mu nga xam ne laataa tubaab bi di ñëw. ci xarnub fukk ak ak fukk ñaar moom moo fi newoon. ñu ne nag drapeau bi dañ koy def ñetti sor bii day day wert bii day mel ne wurus beneen bi day xonq ca digg ma nag ñu def fa desin boo xam ne day fàttali doomi dogon joo xam ne dafa yëkkati ay loxoom mu jëm ci asamaan si waaye daal gis nga ay fan lañ ca teg rek mbooloo mu rafet moomu mu am ñaar ñu ci génn daw may di benee tey jii génn ah Burkina Faso doon Haute Volta moom it daal di cay génn Sénégal nag ak Soudan français ñoom des ne dañuy ànd defar seen fédération kon nag 4 avril 1959 fa lañ daje assemblée fédérale bi ñaari réew yooyu yónni seeni doom bi ñu waxtaanee ba nga xam ne bindaat nan constitution bi ñu daal di nag def gouvernement boo xam ne gouvernement fédéral la Sénégal ak Mali nekk benn gouvernement. Modibo Keïta lañ jëloon def ko président gouvernement ba di Dia doon vice président Senghor jiite assemblée bi. gouvernement fédéral boobu ñi ngi ko defaroon fukki fan ak juróom ci weeru avril 1959 mu amoon na juróom-ñetti ministre Sénégal am ñeent Soudan francais am ñeent.

mag ñaa ngi nettali ne bis booba bis bu rëy la bis booba mooy ban bis mooy le 19 juin keroog ca jardin du palais fa nga xam ne au commissaire u AOF fa la dëkkoon keroog fii ci dakaar bis bu rëy drapeau français wàcc ñëpp taxaw français yi taxaw malien yi taxaw ñu wàccee drapo bi yëkkati bopp fédération du Mali keroog nag mbokk yi der bu ñuul siggi waaye le 20 juin 1960 ba minuit jotee ca la taxaw Senghor ca baat ba Senghor ca làkk ya Senghor ca wax ja daal di wax nag ne fédération du Mali moom na boppam 20 juin 1960. waaye ñaari weer lañ ca teg rek ànd ba daal di sooxee ndax ñi nga xam ne ñoo toogal Soudan ak ñi toogal Sénégal ñoom daal lu bëri jubawuñ ci ndax ànd bi dafa jafe ndax àndum ñaar a jafe. ndax àndum ñaar buñ xuloo kenn du àtte moo tax fédération bu ñaari réew séq ay jafe-jafeem day yomb loolu moo tax nag coow la ma nga yàqoo yàqoo yàqoo yàqu ba keroog ba Modibo Keïta président wooyee ki jiite larme bi di colonel Soumaré jox ko lu mu war a def te jaarut ci ministre de la défense Mamadou Dia Sénégal daal di gis boppam nag ñu fant siro gis ngeen mbokk yi ña nga waroon am réunion bu mag muy conférence politique ba waroon am Dakar le 20 ngir ñu waxtaanee jafe-jafe yi waaye ñaari fan lu jiitu loolu rek coow am chef d'état-major bi nga xam ne moo jiite armée bi daa di wax gendarmerie nanu ñëw mu sant leen liggéey waaye bi nga xamee ne commandant bi bañ na colonel Soumaré daa di wax armée wu Mali nanu dem jël lépp luy am taax le 19 ñu téye ko nangu ko waaye bis booba président Modibo Keïta ca conseil des ministres ba nga xam ne da ko wàññi woon nit ña fa ne te waxtaanu ak waa Sénégal ca la wàcce Mamadou Dia ne ko dootoo vice président dootoo ministre de la défense daal dina nag état d'urgence laa teg te ku yëngatu daan dal ci sa kaw ah Mamadou Dia gis boppam Sénégal gis seen bopp Senghor gis boppam te noonu nag gendarmerie Sénégal jóg dal ca kaw armée ba mu métti lool waaye li muy métti te yàgg mujj nañ ñoom ñu am ndam ci kaw armée malienne loolu moo tax nag président gouvernement fédéral bi ministre yi nga xam ne ñooy ministre yu jóge woon Soudan ak chef d'état-major bi ñoom ñëpp ñu tëj leen def leen résidence surveillée le 20 août jàpp leen jàpp leen ne ñu ngi waxtaanee fédération du Mali assemblée bi nga xam ne mooy assemblée législative maanaam assemblée nationale lañ ko mën a tuddee bu Sénégal ñu woo ko ndaje ci guddi gi. wala ca saasa. bañ ko woowee ndaje ca saasa. ah ñi nga xam ne ñooy garde républicaine nag nga xam ne ñooy wattu buur ñooy wattu boroom réew mi ñooña nag ak militants yi nga xam ne ñoo bokk ci parti Senghor bi di parti progressiste bi sénégalaise ñooñu ci seen bopp ñoom ñoo taxaw wattu leen ca guddi ga ñu daal di wote indépendance Sénégal Sénégal daal di génn nag teg état d'urgence état d'urgence yàgg na fi ñu daal di koy teg. fédération du Mali keroog la tas 20 août 1960. 21 août Modibo Keïta ak ñi nga xam ne ñoo bokk Mali ñu daal di leen di gurgur ñoom ñëpp yóbbu leen gaar ba nag teg leen ci saxaar delloo leen Mali. noonu nag fédération du Mali dee noonu la fédération ba tase Soudan français daal di woote indépendance ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre 1960. nguurug Mali yëkkati drapeau moom mu nuroog bopp Sénégal muy verte jaune rouge waaye mandarga ba nekkoon ca digg ba dañ ko dindi Sénégal moom it daal na du ma soppi loolu moo tax ñu nuroo drapeau Sénégal daal di am wert jaune rouge waaye ca zone ba ca loola di nuroog wurus mu daal di cay def biddiw boo xam ne daa am juróomi cer waaye nag li ñaari réew yi bokk ba léegi mooy seenu bàkk ana lu nuy bàkkoo bu nuy fëgg seen dënn benn askan benn jëm benn ngëm loolu la Mali di bàkkoo loolu la senegal di bàkkoo muy ñaari réew yu bokk benn bàkk ñaari réew yu nuro drapeau ñaari réew yu bokkoon jëmu ñaari réew yu sosoon fédération du Mali mbokk yi lii moo doon nettali bi tey xam sa démb xam sa tey fédération du Mali xam sa démb xam sa wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant abu Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Institut